ci naaj bu tàng jër la yile liggéeykat euh, di naqarlu nërmeelu bu centre Talibou Dabo nërmeelu. on a même des problème pour se payer de l'alcool. am nañ ay jafe-jafe ngir jënd alcool ak lépp li nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ngir defar ay appareils thérapeutiques ak defar ay appareils orthopédiques. gis nañ ne salaire yi toujours balaa muy ñëw dañ koy fay d'une manière discontinue motivation depuis décembre ba léegi nit ñi kenn jotu fi ci centre bi motivation jàpp nañ ne loolu mënatul continuer. jumtuwaay yu jagadi toppatoo gu jaarul yoon ñàkk a jox gëdd liggéeykat yi ñoom nag lu ëpp fukki at. seeni jooyu xol amuñu ku ko faj. waral ñuy samp bi bile laaj. ana kuñ ci war a joxoñ baaraamu tuuma. lépp c'est le directeur dañuy pare liggéey ba fin du mois ñu naan hôpital yaa moo nekk nii léegi lii lii fi nekk te nit ñi bopp. Euh, jële facture ya nga xam ne moom la ñu dagg ak la nga xam ne moom mooy nekk ci biir euh, machine yi fii c'est diamétralement opposé mais léegi nag mënatuñu comprendre benn groupe de lobby rek nekk ci biir centre Talibou Dabo fii à chaque fois nit ñi di génn ci mbedd mi dañoo dem ba mujj ntele bi dañoo mujj soof nit ñi. ngir soppi xar kanamu centre Talibou daabo lenn rek moo fi sës. na ministère jël responsabilité am ñëw régler centre Talibou Dabo en érigeant ce centre en EPS mu nekk un un établissement public de santé non hospitalier bu boobaa ñoom dinañ mun a am benn conseil d'administration ñuy mun a saytu lu fiy dugg di mun a saytu lu fiy génn. ayu bés a nii ndongo yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare ca centre Talibou Dabo jànguñu li ni mel nag di firndeel nii boobu la institution publique lu bari moo fa jagadi.